Papa Demba Thion euh, avenir euh, communication euh, dañoo bloqué dans seen ni à Conti, Djemti, ci peut-être booy seet payol en tout cas bu njëkk ba dañ doon gis ni pression wu nguur gi dafay taxaw bu baax ci presse bi mais ni bu dee mi continuer est-ce que duñu wax ni ba tey jii nii mi le pouvoir bataille en tout cas le régime ne lâche pas la presse comme une bindé la question bi bon sa daanaka kii yu bolo bloqué nañ leen ah. Euh, waaw mais xam nga euh, ñu bloqué compte résultat la c' le résultat d'un fait le fait c'est quoi mooy non conformité avec la loi lu dëgg. Mhm. Hmm? waaw balaa ngay jël position fa ngay ngay ngay jógee fële si kaw après ñu wàcc léegi dañ la le Sénégal lépp luy entreprise toute entreprise légalement établie au Sénégal a l'obligation de payer des impôts, des taxes, des droits à l'État du Sénégal. entreprise bu mu mën di que boo nekkee kuy tabax kër ngay faire euh, ngay def ay peinture wala nga média wala nga une société de transport wala nga société x y loo mën a impôts, da ngay fay impôt da ngay fay également droits da ngay fay ay pénalité loolu ñëpp d'accord nañ ci donc cette loi elle est générale et elle est impersonnelle donc léegi nag bëgg ko personnaliser ba bëgg a wax ne ñii mën nañ leen bañ a mën nañoo bañ a fay wala ñii mën nañ leen jéggal mais noonu lañ koy jéggalee code général des code général des impôts moo ne mmh. l'État du Sénégal a l'obligation mu recevoir ay impôts ay droits ay taxes ci ay entreprises obligation ñu ne même ki nga xamante ne da nga war a fay obligatoirement entreprise bi boo amee jafe-jafe financière wala économique wàccul la mais pour mu wàcc la wala ñu jéggal la da ngay bind lettre nangu ne yow mii da nga yore bor nga war a fay impôt nga bind ministère des finances ñu étudier dossier bi ñu envoyé l'Assemblée, assemblée parce que assemblée nationale rek moi am pouvoir accordé nous balle la wala mu pouvoir président de la république ñaar donc vie président de la république mënul jóg assemblée accordé pouvoir ou mu def ko mënul puisque président mënu aucun ministre et aucune autorité ne peut le faire quel que soit sa statut sa grade mënoo jégale benn yoon impôt lu assemblée mo jox président de la république le pouvoir mo habilité ko ne entreprise Y mo dafa am problème financier économique mais mënul fay ñu xol ndax dañ lay defal remise wala dañ lay defal modération. la hein wala moratoire voilà mo légui ñu xol waaw war nga fay 100 millions. mënoo koo génné tout de suite way may nañ la bi chaque mois fayal li wala ainsi de suite Nous nga mën a fay ngeen signé ñu d'accord ci waaw légui comment un président de la république peut s'enfermer avec des patrons et dire que éponger dans l'embi mhm. 40 milliards. le président d'accord il peut le faire mais à condition que l'Assemblée nationale <coughs> le pouvoir accordé une quelconque entreprise et l'Assemblée nationale joxu faut pouvoir le pouvoir. donc c'est mu wax hein? non mais mais je sais parce que même si c'est une promesse une promesse qui nous promet en réalité l'obligation obligation parce que c'était plus qu'une une, une, promesse c'était c'était acté. c'était plus qu'une promesse. Non, comment comment ça acté. comment ça a joxe ay directives. voilà c'est ça ñu dans ce sens. ay circulaire le bindo non le, problème c'est quoi Momo. il avait écrit à à l'impôt et domaine DGID euh, bind leen pour ñu bàyyi. comment nan la ñuy non mais c'est pas ça le. bi mu waaw six jours comment mm-hmm. ça mu leen Comment ça joxe ay directives ci administration ah, ministère des finances. oui oui pour nous jël ay acte pour allant dans ce sens de. dépasser cette dette fiscale maintenant c'est entre temps si juridique expiré. la question le timing il est suspect. le timing quand je parle du timing. pourquoi voilà il a été là pendant 5 ans il aurait pu le faire il l'a pas fait il a. attendu au moins sollicité. non. les patrons de presse. nous ont demandé audience ci quand on parle de dette début, début, c'est commencé en 2023 commencé 2022 Vous 2021. non non 2020 2021 il le faire depuis longtemps non Le pourquoi ces endettés là une président avant la fin de son mandat à quelques semaines de son départ pour nous régler le sachant que a procédure parce que procédure bon, le président n'a même pas à saisir la direction des impôts c'est pas son problème la direction des impôts est saisie par le ministère des finances le président il saisit le ministère des finances ak kooku bind assemblée nationale ñu jox pouvoir le président de la république pour mu entreprise B, mën nga ko effacer wala mën nga ko jéggal lañ ko bal mu fay ni ak ni ma déggee ñu wax mbir mi na dem euh, circuit bi président jaar hmm. naroon na dem ba ñu effacer dette bobu sans pour autant passer par l'assemblée c'est une violation flagrante oui oui justement mais si on si on suit le raisonnement Hmm. Hmm. il n'avait pas prévu de passer par l'Assemblée nationale. et il viole la loi. et il viole la constitution parce que l'article 67 de la constitution c'est ce loolu daf le li li de la dette ou l'amnistie fiscale des femmes qui koy organiser et qui koy déterminer moy assemblée nationale. et que ça vous dit quoi seul le pouvoir législatif a le pouvoir d'accorder ou bien de faire accorder ou bien demander président, habiliter le président de la République à accorder une amnistie fiscale. Et ici, ni l'Assemblée nationale examine le dossier concernant 40 milliards. Allez, l'administration fiscale, ben affaire là, le gouvernement, ben là, affaire mais le président, ben affaire là. Quand une entreprise Y dans ce pays, Wara faire. mais l'administration fiscale, son devoir, c'est d'aller vers l'entreprise pour que l'État au Sénégal c'est simple la première déjà nous avons casse nous bloqué son compte mais il y a eu une étape avant de bloquer. parce que nous avons dañu dañuy xamal la une bi fisc fayal ñëwaat mais dañuy bloqué et après le blocage de ses comptes nous leneen que ñëpp ñi nga xamante war nañu fay xam nañ comment ça se passe maintenant. le débat ça n'est moo non hein? lan moo ci topp mën nañ dem ba sa parce que par exemple Bougane dal na xam nga dal na mm-hmm. Mm-hmm. dañ ko dal mëna légui compte yi amatuma ci accès légui sa man su fay samay employé légui man da koy def billetage do leen virer sen xaalis mais état état ngay défalal par exemple bu fekkee entreprise yi dafa wara fay ay droits fayal ay droits manam entreprise dootul existe sax mën nañ mais loolu profité wul état léegi nag balaa ñuy yegg ci dootul exister dañ koy éliminer wala dañuy def parce que fermer une entreprise c'est sanctionner des Sénégalais travaillent dans cette entreprise qui sont au nombre de plus d'une centaine ça ne profite pas à l'État et non plus à à ces Sénégalais là mais cela ne dédouane pas aussi entreprise yi ñu war a fay lu dëgg bi mooy dara war a fay loolu mooy dëgg bi léegi nag boo bëggee ñu baal la mën nañ poser le débat et loi bi lu la dafa leer da nga am problème wax da nga koy da koy wax